mu ne ko soo xëyatee ñaanal yàlla mu may la nga jaamu ko jaamu bu rafet may la xol buy dund ci yàlla xolal bi mu ko waxee loolu rek ma ngi koy commencé di jox ay njariñ yu koy jariñ ci dundam li mu wan yonent bi ne ko bëgg naa la rek en dehors nubuwatu gi nga xam ne ñëpp ko bokk ma ngay joxe ma ngi koy wax lu koy jariñ ci dundam waaw man tam pour être pragmatique pour être pragmatique may waxtaan ci uxutu fillaahi bëgg leen te yàlla billaahi wallaahi tallaahi bëgg naa leen te bëgg naa leen te yàlla tax waaw su fekkee ne bëggante nañ ci yàlla tax nag may mbalalali rek su ma amee asi loo xam ne yaakaar naa ne mat na solution du leen ko wax moo tax warada allahu lazina kafaru bi ghaizihim ku ko bind téeméeri yoon di ànd ak moom doo dellu gannaaw ku koy jàng téeméeri yoon doo dellu gannaaw li nga yore du dellu gannaaw man bi ghaizihim nee naa du xayra ba aaya bi jeex soo ko bindee téeméeri soo koy wirdo baax na waradallaahu lazina kafaru aaya bi ba mu jeex soo ko bindee téeméeri yoon di nekk ak moom doo dellu gannaaw soo koy wirdo téeméeri yoon doo dellu gannaaw même soo amee place bind ko sax di ko fa wis du dellu gannaaw joxe naa ko yàlla rek a tax yéen nag am ngeen yeneen te waxu leen ma ko te yàlla tax waaye man wax naa leen te yàlla tax li ma bëgg nag mooy ñi jàng alquran nañ ko bindal ñi ko jàngut dimbalante ci seen biir nit ñi jot ko yéen ñëpp ngeen nekk ci jàmm ah kan la ah la benn yoon C'est-à-dire, j'ai dit aux gens d'écrire euh, Waradallahu Kavarou » jusqu'à la fin 100 fois. Le mettre dans votre pochette et ça vous glorifiera, Inch'Allah. vous